ansubila bisimila ina wàllu yàlla jërëjëf Serigne Touba jaaraama Cheikh Ibrahima Fall mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi ñëwaat tey ci seen émission bu mag boobu di émission jëf jël émission jëf jël nag waxoon nañ leen ci fan yi ñu weesu wax leen dina ñëw facette bu nekk ndax ñoo leen waxoon ne leen biñ defoon daaw ak daaw jik dina wuteeg bu ren ndax dañoo waxoon ne bu ren li tax wute bi am Baye Fall bi bu dee téer la nañ ko fekk leen bu fekkee tudd ko yàlla maçon la nañ ko fekk cinquième bu fekkee ne ay jaaro lay defar dinañ ko fekk fu mu nekk nañ ko fekk bu dee mécanicien rek dinañ ko fekk ndax da si baax seen soppe yi ñoom ak seen mbokk seen mbokk taalibe yi xam ci li ñuy yëngu ak ci li ñuy daj lan la doon tey nag ñëw nañ jàmm gën jàmm gën nag ñu ko waxee wax pour yàlla jàmm gën nag buñ ko waxee wax mu ay aguuri jaal yoo xam dañoo mën a tudd yàlla ñoo fi dëkk yàlla moo leen cërale loolu ñu seet si kan doomi jàmm gën doomi jàmm gën kan la muy sëwru sëwru nga xam ni day taalibe yi eh, sëñ Babacar Mbacke ànd ak sëñ Xaadim Fay ñu nekk ci liggéey boobu di ko liggéey liggéey bu yaatu boobu tey nag ñu ñëwoon daral ko yéen ñi ñoon laaj laaj yi ngeen ñu bind yëpp ci internet bi gis nañ ko koo xam ne soppeem nga bala ngay xaritam baa ngay am ni jàmmam loo ñu laajoon ci moom mi ngi fii si ñun dinañ leen ko laajal bu dina leen tontu wax leen lépp ni mu demee kon nag ngeen topp ñu seen mag boobu muy TMP Events Top Model seen émission jëf jën kon sëwru ñoo ngi lay nuyu. asalaamaaleykum. auzu billaahi mina shaytaani rajiim ونعوذ بك وذريته من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين ورب dañuy wax jërëjëf Serigne Touba rek ah, di sant sëriñ Touba di sant Cheikh Ibra Fall di wax jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall ah, di sant bu baax sunu bunt ci sëriñ Touba maam Cheikh Anta Mbacke Cheikh Babacar Mbacke di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool ànd ak noonu lañ koy ñaanalee. bépp rek mbokk taal bi boo xam ne rek yaa ngi dégg suñu kàddu ak Sénégal ak li ko wër ak lépp rek waaw di wax ne asalaamaaleykum seen ndongo bii nga xam ne moo xeebu ñu naan ko sëwru taalibe sëñ Babacar Mbacke mu kabbaru waaw moom lan dalal waaw ci émission bi tey tey waaw kon yaa salaam rek. ak sa mbokk taalibe yi dégg ngeen ko sëwru noonu la duggee noonu la nuyoo waaye olof moo wax ni saxaar bu jubee gaar dafay corne kon nag sow dañoo bëgg nga tudd yàlla muy entrée bi nga xam ne dañoo wax ni saxaar bu jubee gaar dafay tourné nga tudd yàlla bu ko defee ñu tàmbali émission bi. ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله فال مصطفى لا إله إلا الله لا إله إلا الله شيء لا إله إلا الله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 la ilaha illallah faal Mustafa la ilaha illallah la ilaha illallah faal Bamba Bamba la ilaha faal illallah waaw. waaw mbokk taalibe yi noonu lañ leen ko waxe woon ne euh, saxaar bu jubee gaar dafay corné kon dégg ngeen sëwru li mu dugg see ni mu nuyoo nga xam ni tur yàlla la nuyu see nga xam ni yàlla moo wax ni anna salaata tanha anil fahsha'i wal munkar wala sikurulahi akbaru waaw nga xam ni euh, euh, Sëñ Tuubaa moo waxoon ni ama dawaamu sikurulahi fa huwa akbaru min kulli maa kaana muridan yuxsiru mel ni baat boobu moom la see moom sawru kon tey bu bëggoon a xam sawru sawru bi dugg ci waxtaan bi euh, ñu xam kan mooy sëriñam waaw ñu ngi koy wax Cheikh Babacar Mbacke ah doomu Cheikh Ibrahima Mbacke Ndar ah, mu maam Cheikh Anta Mbacke borom Daaru Salaam ak sawru moom lan moo ko booleeg sëñ Babacar Mbacke nan la def fa la gisee moom wala nu mu ko yëgee wala daf toog këram ba yëg ko sentir ko rek wala nan la def ba jéblu sëñ Babacar. waaw yoon de moom boo gis rek. maa nga dëgg lool nag kii bu bu nekk mag xam naa lépp lépp du ma ko mën a wax waaye dama ci am lu may wax rek. waaw maanaam euh, sëñ Babacar man moom yàgg naa doon Baye Fall te gisee ma sëñ Babacar waaw maanaam yàgg naa dund waaru Baye Fall. waaw te gisee wu mag sëñ bi waaw taxaw naa nag ci ëtt bu nekk gis na ab sëriñ waaye nag xam naa ne ñoo nekkul woon ñi ma yàlla boole waaw mais sëñ Babacar Mbacke moom dañoo dama jóge fii dem euh, Kër Mbay Fall Kër Mbay Fall benn bis daal ñuy am cant guddi ki ñuy wax Cheikh Khadim fay boobu ñoo bokk koñ ci la ma gis na ma euh, tey guddi dañuy dem cant ndax boobu dañ doon fowantoo si kar rek mu ne ma daa am cant yu ñuy dem ma ne ko cant yi fan la ci la ma xamal na kër Mbay Fall la ah ci lañ ànd nag dem noonu ñu wàcc kër Mbay Fall bi ñëwee ba ci boobu cant sëñ Babacar mi ngi ñëw mi ngi ñëw dugg ci barche waaye une heure une léegi instant boobu maa ngi jéemantu sax waaye après daal moom bi muy dugg si baat ak Baye yi ñëw waa di yëngu may may may yëkkamti lu xool sëriñ bi mais yàlla yàlla daal moo booleeg moom ndax keroog bi ma tegante bët sama bët bi ma ko tegee ci moom. wax dëgg yàlla rawatina mu am loo xam ne daf ko waxtaane waaw mais am na yoo xam ne daal moom xam naa ne buñ ko mën a wax yëg-yëg la wala waa yëg-yëg la bu doy waar léegi après ci laa xool man ah man xam naa kii daal moom mooy sama sëriñ waaw ah, ci bis boobu nag laa jébbalu man waaw waaw. ndeysaan mbokk taalibe ba tey loolu mu ngi leer nañ noonu la jébbaloo ci sëñ Babacar Mbacke mu kabaru loolu moom suñu borom moo koy def nit moom ku nekk fa war joxe si bopp rek foofu nga koy joxe mën ngaa gis téeméeri sëriñ waaye saa bu jotee rek foofu la sëñ Tuubaa branché waa ñu bëggoon a xam sëwu ndax jaar na ci daara daaray alxuraan wala daaray tarbiyu waaw waaw waaw jàng naa nag jaar naa ci daara alxuraan waaw waaw tarbiyu moom ci yoonu Baye Fall laa ko defee waaw tarbiyu moom ci yoonu Baye Fall laa ko defee ndax ñun ah, bi ñu bi ñu nekkee pour tànk maanaam à l'âge de sept ans ci lañ dañuy jàng ko bu ñu wàccaan dañ daan dem jàngi alxuraan waaw amoon na sëriñ bi ñu doon jàngal bu ñuy wax Pape Balla Dieye jàmm gën la dëkkoon fii Pape Balla Dieye man fi moom laa feree ijji waaw ci moom laa feree ijji waaye nag moom bu dee tarbiyu ci Baye Fall moom waaw ci ëtt bi sëñ Babacar Mbacke bi laa ko defee ndax ñun dem nañu waalo dem nañ euh, dem nañ waalo ab def ay 15 jours ñëpp bisiwaat ñu xalal ñu tool ndànd ndànd it jàng def nañ fa ay tool di fa bàyyi ci sëñ bi waaw loolu yëpp nag grace à Cheikh Khadim Faye ndax loolu yëpp moom moo ko def ci ñun daal. sa digganteeg foofu nga dugg sax laay ñëw sa digganteeg Cheikh moom nga wax ndax dañuy gis ni yéen ñaar diggante bi ànd bi yàgg na bi ngeen dalee ànd yàgg na ba tey yëf yi ni ko suñu borom dogalee ba ni ko sëriñ bi def nga xam ni def ko jiitoo ko ci mi am lu mu def ci moom mu ànd koog mbooloo mi sa digganteeg Cheikh moom lan la. waaw suñ sama digganteeg Cheikh Khadim moom it bu ma doon toog di ko résime waaw début bi ba ci fin bi day jël temps. mais dama ci def li nga xam ne rek mooy anecdote moom yàlla moo ñu boole bi ñu nekkee xale ñun lépp ñoo ko defandoo maam moom lépp ñoo ko defandoo ñoo doon ànd di wut xale yi daan def rek lépp daal ñoo ko def waaw waaye nag moom wax dëgg yàlla yàlla da ko mës a baaxe mu nekk nit koo xam ne moom lu dul sëñ Touba rek moom moom néew néewut ci loolu waaw ci jamono tu tànkam ndax moom damay fàttaliku sax am na jamono boo xam ne bu mësaana son njaq moom danaa liggéey téer taman dama daan jàng bu ma saana sol njaxas day sol njaxas jël ñoor defar benn ñoor wàcce ko noonu su ma ko gisee nag loolu dama koy bëgg man moom moo ma njablu loolu la ñuy wax jaajuruur daal moo ma ko def waaw ndax moom daf ma daf ma yàq moom moo ma njablu lépp moo ma ko defal waaw kon moom daal may profité waale ci occasion boobu moom oo ma fayal Cheikh Khadim Faye yàlla ko yàlla gën a kàttanal gën ko dëgëral ndax xam naa ne ab jàmbaar la waaw jàmbaaru Cheikh Ibra Fall moom baay Fall moom lépp waaw ñu ngi koy ñaanal rek yàlla yàlla gën a gudd fa. waaw kay noonu la ñu. boobu di jëf jël ànd koog waa TMP Events muy topp medel ci wàllu sikar si lan moo tax sëwru zikurulaa sëwru zikurulaa fii gis boo nekkee ci ci day yëngu sëwru fan la jaar ak fan la nampee sikar tey sikar si loxoom ba xam boo xee sëwr rek mënul zikrullah fan nga jaar ci sikar sikar moom ndeysaan am na yoo xam ne fi ñu déroulé ñun maanaam bi ñu tànk di di kii daa amoon daayira bu nekk fi suñu koñ dan fa daan ay ngontu la daan doon boobu jamono sëñ Mbàkke soxna loo daayira sëñ Mbàkke soxna loo ñun maanaam foofu lañ bëggee xirtal gi foofu la jógee waaye bu dee wàllub sikar moom ku ñu ci ku ñu gën a ba nga xam ne fu ñu ko déggee fu nekk rek mel ni suñu rabu ndëpp dafa jóg waaw ah, yow moom duñ la ciy sant <laughs> sa jëmb ji kenn du la ci waaw ah, ndax ñu dañ daan tëdd guddi ba guddi dégg ab baatu sikar fu mu mësaan a dégg sikar dañ daan dañ daan jox ba ay Cerno Njaay di dégg sa baat yow mii góor yàlla bii toog yow Masamba yooyu kenn mënu fay waaw ah, kenn mënu fay ci kar suuf surtout ment jàmm gën ji ñu nekk waaw jàmm moom wax dëgg yàlla ak lu mën a xew yow moom wax dëgg yàlla di la sant waaw daa bokk ci lu ñu war ñun ñun sikarkat yi nga xam ne ñoo fi tudd yàlla ndax ba sikar ba sikar raflee yow bu ca boobu nga daan sikar ba sikar amee problème ba nga xam ne benn góor yàlla mooy taxaw di sikar suba ba ngoon muy yow mii ñun jal boobu dañ daan daawuñu sikar sax dañ daan ñëw bu maanaam necca jàpp yaag di dooru tooju xëppoo ndox ak yooyu waaw ci loolu noonu wax dëgg yàlla waaw ca loonu nag waaw wax dëgg yàlla ci la sikar dugg si ñun waaw man nag ki ma njëkk a jox micro na ma tuddal yàlla moom daa mos a ma mos a bett rek may sikarantu nii ñu koy wax sëñ Modou magi Seex Xaadim Fay la magi Seex Xaadim Fay waaw Modou waaw men ñu koy wax men waaye mbada la dëkk ku baax la borom baax moom danaan sikkar ba mu jàgg benn bis daal ak gestu rek yem ca man. na ma kaay ma ñëw mu ne ma tey du ma sikkar yow yaa sikkar ma ne ko man. mu ne ma waaw yow laa bëgg nga tudd yàlla mais keroog daayira boobu damaa sikkar ñëpp. keroog liñ ma fa jox ci xéewal sax te boobu tu tànk laa noonu waaw foofu daal la ma sikar si duggee man acca waaw waaw waaw ndeysaan sëwru ba tey dégg ko foofu la ko sikar fii su sikar duggee wax na yii mu demee waaye wolof day wax ni day am loo xam ni foo mën a jaar ci àdduna ba ci liggéey bi ngay liggéey il faut am koo xam ne ci moom ngay jaar mu tarbiyu la mbaa nga bëgg ko mbaa nga yëg ko wala nga topp ko sax bu dee ñetti minute la mu am lu mu ci yow ndax it ah sikar moom nit da koy summi ci yow rek bu ko summee ci yow rek daanaka deret lay mujj doon ci yow kon nag moom moo baax rek di wax loolu ndax it yàlla mooy dogal loolu rek suñu borom mooy yor ay dogalam ba tey sikar soosu ngay wax ci la ñuy ñëw fexe nag sànq am na noo duggee mais dañoo bëggaan nga tegalaat ñu beneen air boo xam ni ci say daaju bopp la bir na ni air bi moom kenn da ko sa daaju bopp boo maîtriser nga tegal ñu ko ñu dégg waaw waaw dina mën yaa jara kañ ba dee Muhammadu Rasulullah salli ala ku way saaba yaa Mamadu Rasulullah salli Allah yaa xaywal xalqula salli Allah Allah ci la ilaha yaa ngi am ne yaa la ilaha sadeexuna mukabaro yaa nu moome ha ila laifa baay Fatima duma ki lay mu jaway yonen bi xayru xalqula yaaram nga yaaram nga lay salli ala mambamba salli ala nuru nabi salli ala nabi ala bamba jaajëf Cheikh Ibra jaajëf sanixuna mukabaro salli allah nooru nabi salli ala nooru nabi la bamba jaajëf salli ala nuuru nabi ndeysaan yéen a ko déggandoo moom kon moom loolu mooy daajam bu mu maîtriser nga xam ne moo ko moom boppam bokk ko kenn ndax lu guddi guddi lu mu naaj naaj foo ko mën a déggee boo ko bettee buy nelaw saa bu ko daajee ak ku ko mën a daaj ci àdduna waaye moom bu ko waxee rek nga xam ni ah, daaj bi ñibbi na ci këram waaw loolu yàlla moo koy dogal ku nekk dafa am say yëf yoo moom sa bopp sawru ba tey ñëwaat ci émission bi sawru ndax mas naa dugg studio génne cassette benn CD wala ñaata CD la génne gum laajuma ko nag mbokk taalibe yi ñoo nekk ci internet bi binduñu ko dañu laaj ndax Sëwru mës na dugg studio génne kaset wala mës na génne ñaata cassette la mës a génne. waaw waaw loolu moom dinaa ci sawar ndax xam naa ne loolu yàgg nañ ma ci laaj ak di ma ko kii waaye yàlla dogal na musuma génne cassette musuma def single te am na ay mbokk taalibe ak góor yàlla yi nga xam ne ñoo may bëgge fu nekk rek yàgg naa dugg ci biir lu nekk wax nañ ma ko. waaw naan ma Baye Fall bi ah, dañuy xaar nangam nangam waaye lu jot rek day yomb waaw ah, ndax jóg naa ba tey bañ def ko am naa fi ay enregistrement def naa fi ñetti enregistrement yoo xam ne war naa génn waaye saa bu bëggee rek man xam rek ab Baye Fall laa lu may dox lu nekk dama ciy doxee ci yoonum ndigal waaw am na nag ndigal boo xam ne jot nañ ko fi mu nii moom ñi ngi waajal waaw ndax ñun bëgg nañoo génnee album waaw kay album boobu moom la mbokk taal bi yëpp di wax ndax nee adduna bi seetaan na ñëpp ñu ngi déglu ñu ngi ñu ñaa ngi sikar ñu ngi génne album ñu ngi def ay single di def ay clip yu bari mais Sëwru pourquoi te moom niveau bi gars yi toll foofu la toll mbala mu weesu ko kon nag ñoom ñoo ko bind wax ko ci internet bi pour yow nga def loolu ndax it ñoom li ñuy laaj rek pour laaj la ko loolu la ñuy laaj ñu bëgg a xam yow lan nga leen di wax ñoom ci loolu ñuy laaj ci wàllu album bi fan nga ciy toll fi mu ne di leen ci wax rek ne waaw ñi ngi ci kawam ndax ñun suñu mbégte chaque jour rek la yoo xam ne rek waaw dinañ ko safoo ñii di ko bégee waaw loolu mooy suñu mbégte ci waar wi waaw ndax gannaaw bu yàlla taxee gannaaw bi nga xam ne yàlla moo tax waaw ndax euh, waaye jaam lu muy sabab lu nekk rek yàlla la cay jiital waaw ñuy sant nag bu baax rek di wax ne yéen ñi ko xam ne yéen a koy xaar waaw buy ñëwit noonu lay tudd yéen a ko doon xaar mi ngi ngi noonu daa mel ni kon ba tey mbokk taalibe ci TMP Events la xewee Sowru moo wax ci làmmiñam nee na fii la ko waxee mosu ko waxee fenn nee na album bi buy génn ni muy tudd mooy yéen ko doon xaar mooy titre album bi kon fii la xewee ci TMP Events seen émission jëf jël nañ ko xaar yàlla ko yàlla sottal ak jàmm dara jëy Cheikh Ibrahima Fall barke sëñ Gaawaan